يا همة الشيخ رجل لنا هذا المخبر ولتعطفي بنظرة لنا بسفر ورضي الله عن صاحب القتل والختم الغوث القطب الغوث الختم التجاني أبي العباس أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه أما بعد إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci ngeen liñu ndeer bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, mbokki eh, groupe bi di chaîne bi Tivaouane TV ñu ngi di nuyu di leen ziar eh, di nuyu suñu kër ci buntu kër maam sa Seydi Hadji Malick Sy di Seydi Mouhamed Sy Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu Seydi Mansour Sy borom daara ji ñu ngi koy ziar mooy suñu sëriñ ci buntu ci kër bi di ziar te mboolem xeetu ki nga xamante ni rek yaa ngi euh, taataan waxtaan wi ñuy def di sàkku ci mbooloo mi ñu gën a mën a abonné tey euh, partagé li nga xamante mooy vidéo bi tey nag mbokk yi mu nekk suñu première dars bu nga xam ne ni ñu ngi ko bëgg a def ci li nga xamante ne ne mooy euh, fakahatu tulaab aw jaami'ul maraam mi nga xamee ni suñu maam Cheikh Seydi Hadji Malick moo ko bind te mu nga xamante ni téere la ci tariqa bi te mooy fiq tariqa bi lu nga xamante ne nii rek ah daanaka ñu ko wax ci téere bi ñu jàpp ne suñu maam mu ngi ko jëlee ci maam Cheikh Omar Fouti Sirimaax ak li nga xamante ni mooy Jawaahirul Maani bi nga xamante ni Cheikh na Ahmad Tijaani moo ko doon wax nga xam ne mooy Aliou Harazmi Barada bi suñu sëriñ ci Jawaahirul Maani di ko doon taataan daal di koy bind fa tabarakallah e téere boobu nekk téere bu nga xamante ne comme ni ko waxee rek fiq tarixa bi la moo ñu jàng suñu tarixa comme si charia bi ni ñu amee fiq charia nonu la nga xamee ne tarixa bi amee li nga xamante ne mooy fiqam te nekk téere bu nga xamante ne téere charia la ndax daf lay jàngale li nga xamante mooy ponk yenn ci julli di la jàngal wàllu soufisme di la jàngal wàllu bëgg yàlla ak yu ñu mel ak yu ci làmboo fa tabarakallahu daanaka soufisme moom bëri na ay kër ni ci ay yoonu ay turuq yu bëri ay tariqa ba ci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 وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مام تعملني خمنتنا موي تيري بي بسم الله الرحمن الرحيم موي بسم الله مام ني مغي تامالي تي الله مي خمنتني موي تور يالا لي خمنتني مو نيو خمن يالا دا ني كيرين ييب اي ميلو سوني بروم لا واي تور دغ دغ دي تور سوني سبحانه وتعالى مي اللهم mu ne e arrahman moom mi mooy aji yërmande ji si jaam yi si si kaw suuf aw xiin ki nga xamante ne bésu yowmal qiyaam mu dugal ku ko nekk ci jërmandem ci aljana mu ne wasan la yàlla na julli allahu moom yàlla taala mi nga xamante ne moom jommanee caaxaan ni ko góor yàlla yi di firee am na ñu naan taala mooy lu koy waaye ni ko góor yàlla yi di firee mooy mi nga xamante ne jommanee caaxaan taala allahu malikul xaq ñu dem mu ne ala ci ci nga xamante ne mooy sayidina mooy suñu sanga mawlaana di suñu kilifa muhammadin di sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam mu ne wa alihi nag wa ala alihi ahli waa këram wa saxbihi ay saxaabam wa sallama te mu dolli leen xéewal tabarakallahu allahuma ni ko maam di ko waxee ne moom nekk moom bur yàlla samedi yàlla na julli على سيدنا تسني سانغا محمد di سيدنا محمد الفاتح moom mi nga xamante ne moo tëj li ma ñeel li nga xam ne uxlinqa dafa tëjoon waaw moo xam ci ay xéewal ndax jamono nekkoon na jamono bu nga xamante ne bu piir la bu tumuranke la bu lëndëm la et yàlla ak yónni nga xamante ne moom la def ci li nga xamante ne mooy ci humanité bi ci univers bi ci alam bi mooy Seydina Muhammad néew leeral lépp لو لم يلح في فضاء كون تلعطه تبقى البرية في ظلماء الله ba tax na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wal xaatimi mooy ki nga xamante ne dafa tëj lima ñel li nga xam ne sabaqa wees woon naka te xam nañ ne sayidina muhammad mooy imaamul mursalin di xaatimi anbiyaai wal mursalin moom moo leen tëj te keneen du ñëwaat ci ginnaaw ndax fan yu néew dégg nañ ci oote ay yonent yu bari waaye ñoom ñëpp waxuñu dëgg dañuy caaxaan rek waaye sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko bu yàgg mu ne an nasiril xaqi bil xaqi yonent bi nga xamante ne mooy aji dimbali koo dëgg ci dëgg moom rek ka jagoo nag ah ña koy roy fa tabarakallahu nit a ngi eh, dimbali koo caaxaan ci dëgg waaw yéen tey dëgg la dimbali ko ci dëgg ki nga xamante ne mu ngi fàggu alal gu xamante ne lewul fa tabarakallahu ah loolu lépp mu jaral ko ko mu ne ah yóbbu si jàkka ngeen ñu tabaxee ko fa kooku xam ngeen ne ak caaxaan lay dimbali koo dëgg waaye kooku wuute na ak la yonte def na yonte moom dëgg lay dimbali koo ci dëgg loo tax eh, salaatul faatixa am ngëneel ay doole wal haadi moom mi ngi xamante ne mooy aji jubal bi ila siratikal mustaqim ci yoon wi nga xamante ne mooy yoonu àgg ca buur yàlla fa tabarakallahu te bu ñu xoolee suñu mag yu baax yi ñu fi nekk yëpp boobu intérêt rek lañu amoon mooy faxee jël li nga xamante ne ne mooy e taalibe yi yóbbu leen ci li nga xamante ne mooy ci subhanahu wa taala ci suñu borom xamal leen lan mooy buur yàlla xamal leen kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu weesoo lu dul jàllale ci sunna bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu كيف كان يكون خامنتنا جهود اللي خامنتنا موي يونو آه، طريقة ال آه، إندونيوز مو خام إندويلا ولا بوديز مو خام بوديز إلا أيون مل إيه، نعم خام نفعنا جاب تجرب وايون سرقة مستقيم بيد إيه، أجد دقة باي أجل تيالا موي بو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتحنا وعلى آله أخ أيوا كرم waaw alihi boo dégg gisee salaatul fatiha amul li nga xamante ne mooy wa sahbihi ndax saxaaba yi dañuy dugg ci waa si alihi ndax yenente bi daf ko waxoon ne ana man maay bàyyu nga xamante ni ko ragal yàlla am na ci xolam ba tax na saxaaba yi dañuy dugg si biir mais julli joog yëpp yàlla ñu ngi ñaan nga def ko ci yonente waaye ci naka xaq qadir ci dëgg dëgg dëgg dayo yonente bi sallallahu alayhi wa te dayo yenente bi kenn mënee su la xam kenn mënee su koo xayma ba xam ni mu mel wa miqdaarihi ak kemam kemam gi nga xamante ne azimi mooy euh, kem gu màgg la wa tabarakallahu noonu la kamaam tijjee ginnaaw bu mu sante yàlla julli ci yenente bi julli ci gën di salaatu di salaatul fatiha li ma uxliqa gannaaw loolu nag maam delluwaat sant yàlla mu ne alhamdulillahi allazi afaada ala awliyaihi buxuurul anwaari wa jaala lahum maadina almaarifi wal alhamdulillah xaaji cant yi na dellu ci allahu moom mi nga xamante ne mooy buur yàlla buur yàlla mi nga xamante ne alladi moom mi nga xamante ne afaada moom moo bëbbal afaada moom mi nga xamante ne mooy nàndal te awliyaihi ci ay nitu yàllam yu nga xamante ne yu màggale lañ bu xuural anwaari li nga xamante ne mooy géeju leeri wa jaalahum mu def ci ñoom li nga xamante ne almaadin almaarifi li nga xamante ne mooy mbelluwaayu xam-xam dëgg-dëgg xam-xam wal asraari ak li nga xamante ne mooy mbóoti wa tabarakallaahu loo tax ñoom nitu yàlla yi ñooy kubuurul asraar ñoom ñooy bàmmeelu secret yi yàlla yi wa tabarakallaahu nag ci ñoom la seen dënn yi di ballee li nga xamante ne mooy xam-xam gi tax ñu man xam lan mooy yonente bi xam-xam gi nga xamante ne mooy tax ñu xam lan mooy dëgg dëgg dëgg li nga xamante mooy axu saxaaba yi ak xam ko moom dëgg-dëgg moom subhanahu wa taala mu ne bur yàlla mi nga xam yi a saaq yi mooy ki nga xamante ne mooy aji nandal min baxarihi si jéejam jooju e an namiru géej gi nga xamante ne dafa neex bay tem-temi e mu ngi koy defee ne bi fadlihi rek ci ngëneelam waaw ñu ne nag géej gi nga xamante ne yàlla mi nga xamante ne moom moo def ci ay al maadin al li nga xamante ne mooy xam-xam ak moom nag bur yàlla moom mooy nàndal ci géejam googu nga xamante ne dafay tem tamit bay neex loolu ba gën a neexlem ci ngëneelam nag mu ngi koy def kum ci nàndal mu ne aljalilu ki nga xamante ne mooy punkalu waliyu bi e ak ki nga xamante mooy alxaqiiru ak ki nga xamante ne mooy e li nga xamante ne mooy waliyu bu ndaw bi waaye kenn du ko firee waliyu bu xeebu bi ndax loolu ëpp naa wax waaw waaw géej nag moo moo moo ëpp dex waaye firiwul ne dex xóotul waaw firiwul ne dex xóotul moo tax dafa mat bàyyi xel waaw ndax foo gis bu mag rek du safan ndaw géej na loolu waaye firiwul ne dex dafa tuuti waaw ku ko xeeb rek daaga labu si biir fa tabarakallah maam ne ah. fa yatajarra'u waaw ba mu ñeme waaw ah, koy ñeme foofu nag eh, li nga xamante ne mooy alxaqir mooy li nga xamante ne mooy waliyu bu ndaw bi waaw waaw ba mu ñeme wa in daafu ba nga xamee ne ne domp na wala nga ne al fata fata yajjaru al mafdulu ba mu ñeme al mafdulu ki nga xamante ne eh, mooy aji rangalu may bi bu ndaw bi wa in doxufa ndegeem moom waliyu bu ndaw bi e lottu na ci li nga xamante ne mooy may yi nga xam ñu koy rangal fa yatajarra u dana ñeme mulaqaatul fadili di bëkkantee ah li nga xamante ne alfadili mooy punkalug waliyu bi an nabili moom li nga xamante ne mooy aji baax te moom lañ ciy déggee moom lenn kese la moo di eh, saa saa nitu yàlla bi dafay toll fu nga xamante ne ni day fëgg dënnam di wane li nga xamante ne mooy ak ak ak niteem yàlla gi mu am ak martabam ak maqaamam di jiima wane e loolu rek la ma bëgg wax ne fayatajarra'u wa in da'ufa al mafdulu mulaqatil fadili an nabil loolu rek la ci maam jublu ngir wane parfois wóoli bu ndaw dana jaayu ngir wane ay mayam ay kéemaanam waaye loolu lépp mu koy amee ci li nga xamante ne mooy barke yi wóoli bu mag bi nga xamante ne daanaka mooy an nabil mooy ki nga xamante ne mooy wóoli bu mag bi fatawakkala xam na foofu lañ koy yemadi rek ci li nga xamante ne mooy darse bu eh, néew boobu ngeen xam ne benn mbokk bu tuumaranke rek a ko doon def di Mame Moussa di jokk ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ibnu Serigne Mahfouz si borom daara yi tabarakallah di ziara mbokk yi di leen ñaxtu ñu gën a mën a abonné te mën a partagé li nga xamante ne fa tabarakallah mooy dars yi dinañ ko wéyal incha allah di jéggul ci dëng-dëng lépp si jóg ngeen xam ne suñu borom la dëng ngeen xam ne ci ñun la fa tabarakallahu wasalaamu aleykum taala wa barakaatuhu